jafandu leen jafandu président yi noonu di dem mu ngi noonu di dem génn nañ fi nga xam ne mooy tribunal bu Dakar ñoo ne si bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ñibbi si alhamdulilah rabbil alamin waaw ñu ngi nii di ñibbi. alhamdulilah kenn du Sonko yaa fi futur président du Sénégal. ana dugg loolu micro bi. yaa fi nekk yaa fi ne yaa fi ne yaa fi ne. yow man oto bi laa bokk nga may wax ay baju. yaa fi ne. président yi noonu di dem. dafa leer ñibbi rek waaw waaw. dafa leer ñibbi rek. barki alxuraanu karim kenn du yow le cinquième président du Sénégal on va on va commenter góor góor président bi test micro est-ce que c'est bon yéen ñi di di ñu suivre nous sommes euh, fi nga xamante ni moom moo di euh, hauteur u Médina di génn euh, juste fi nga xamante ni moom moo di Daaf ak porte du millionnaire nous sommes dans un convoi celui du président Ousmane Sonko après près de Euh, plus de six heures euh, de de face à face euh, avec ki nga xamante ni moo di l'accusatrice aji Raby Sarr donc président Ousmane Sonko comme ni mu ñëwee woon avec une sérénité extraordinaire exceptionnelle comme niñ koy waxee une sérénité légendaire le président Ousmane Sonko est sorti tout souriant à s'affronter ak son staff ak ñi mu àndal Euh, actuellement euh, mu dugg ci otoom avec euh, ses avocats la actuellement jël nañ corniche bi ñoo ngi jëm direction cité kër góor gi avec vraiment ay sénégalais yi taxaw ci kaw tali bi di yuuxu président Ousmane Sonko comme niñ ko tàmm di à chaque fois de ses sorties cette fois exceptionnellement nous sommes à Dakar li nga xamante ni moom moo fi am moom moo di face à face bi fi amoon ñoo ngi nii Euh, gis ne scooter yi ils sortent de partout euh, pour venir soutenir et accompagner escorter euh, ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko yéen a gis image yi Sonko Sonko xale yaa ngi noonu il faut dire que aussi nous sommes accompagnés de dispositifs sécuritaires impressionnants impressionnants ñoo ngi koy gis ci ginnaaw li nga xamante ne décompté nañ minimum sept pick-up de la à brigade d'intervention polyvalente et aussi du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN ñi ngi ñu gunge ñi ngi jéem a bloqué un peu les scooteristes ak gars yi topp yëpp mais euh, véritablement kenn mënu ci dara la presse euh, et aussi euh, dans dans dans le convoi am na ñu ne ci kanam am na ñu ne ci kanam waaw loolu lu dëgg la sama naataango bi moom moo ko wax parce que mbax ne bi naaw na Euh, ñoo ngi nii c'est un plaisir de retrouver tout le monde dans ces moments là euh, confrontation bi ñu doon wax euh, depuis mars deux mille vingt et tey ñu gis le président Ousmane Sonko toute sérénité mu ñëw génn këram comme d'habitude vêtu d'un costume bleu et d'une cravate tout aussi bleu président Ousmane Sonko ñëw avec staffam rencontré ki nga xamante ne moom moo di le doyen des juges qui l'a convoqué Euh, waaye itam euh, tout au long euh, de ce processus muy dem bi ak dellu si bi yëpp mën nañu wax ni lu leer leer moo di c'est un rendez-vous avec le peuple parce que nit ñaa ngi génn ah live yaa ngi explosé mu di Bour News mu di ñeneen ñëpp ya a du monde ah que les patriotes ak ñi nga xamante ni moo di mafia kàcc kàcc site yi on n'en parle pas Dakar Actu Dakar Buzz tout le monde est en mode live le Sénégal entier est en train de regarder en nombre le président Ousmane Sonko di dellu këram waaye du loolu kese la ñuy seetaan ñuy seetaan ki nga xamante ni moom lañ am yaakaar ni moo di euh, l'homme qui peut changer les choses ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko suivre président Ousmane Sonko pare na face à face am bi mu doon def tout à l'heure ak euh, Adji Raby sa mais surtout par rapport au juge parce que ñëpp yëg nañ ko Bassirou Diomaye Faye a fait un travail remarquable en nous comptant les minutes yi nga xamante ni moo di les minutes d'audience waaye itam Sadiq Top wax na ko ak El Malick Ndiaye président Ousmane Sonko à chaque fois de ses sorties day indi ay éléments yu bees donc am na ay éléments yu bees yu bëri macha allah yoo xamante ne teg nañ ko ci table bi pour étayer la thèse et surtout ce complot là d'état ourdi comme contre le président Ousmane Sonko donc lii di audio am na lii di yeneen document am na et à l'opposé euh, comme ni ngeen ko gisee ils étaient venus euh, pour faire un show et ce show là euh, gis nañ ko dès le matin waaye di dellu si waat ci li ëpp solo ci li nga xamante ni moom di ce rendez là moo di président Ousmane Sonko a répondu aux questions du juge wane ni sa disponibilité pour que le travail de justice se fasse pour que surtout li nga xamante ne moo di les quatorze morts yi amoon ci événement mars yi ñu mën ko élucider donc mën nañu wax ne tey moom euh, répondre na favorablement à la convocation depuis ce matin sax déjà presse bi ñu bëri eh, ah, def des observateurs se poser la question est-ce que véritablement dina dem wuy ji compte tenu euh, de de timing confrontation bi les avocats en ont parlé mais ce n'est pas un frein pour li nga xamante ni moom mooy euh, éclatement de la vérité parce que le président Ousmane Sonko dafa nekk ci logique gu wane dëgg euh, ñëpp xam nañ ni avant cette confrontation on devait avoir euh, d'autres auditions notamment ñi nga xamante ni moom la défense moom la ñu indiqué maître Sow ki nga xamante ne moo bind plainte bi waroon nañ ko déglu maître Dior Diagne bi nga xamante ne mooy borom fameux SMS bi itam waroon nañ ko déglu ki nga xamante ne moo di Mamour Diallo itam ñu dégg ko ci ay audio non mais aussi ñu tudd otoom bi nga xamante ni moom moo jël si woon Euh, ndaw si Sarr euh, ci euh, salon bi moom itam waroon nañ ko déglu ki nga xamante ni itam moo di capitaine Touré la défense avait demandé à ce que ni ñu auditionné ko ki nga xamante ni moo di capitaine Touré parce que moom moo l'enquête préliminaire donc yooyu noonu yëpp muy phase yoo xamante ni waroon na fa jaar cette confrontation di am mais logiquement président Ousmane Sonko d'accord ñëw wuyu si parce que le temps de la justice doit être celui des citoyens quand la justice appel bu tegee lépp ci yoon war nga ko mën a wuyu président Ousmane Sonko loolu la wone et tey nii euh, minutes yi ñu jot a am euh, ci li nga xamante ni moo di confrontation bi xam nañ ni véritablement euh, y a du nouveau parce que le président Ousmane Sonko est venu avec de nouveaux éléments on parle d'un rapport mais aussi on parle aussi d'audios qui ont été mises yi nga xamante ni teg nañ ko ci table ki nga xamante ni moo di doyen des juges à lui d'apprécier mais euh, tey li gën a am solo moo di la sérénité euh, dont a fait montre le président Ousmane Sonko. il faut aussi que Bassirou Diomaye def na liggéey bu bu solo tey. Vraiment. Donc il aussi d'aller abonner absolument sur sa page Bassirou Diomaye Faye l'officiel. waaw Bassirou Bassirou tey euh, am na taxawaay bu rafet parce que aussi loolu la ñuy xaar aussi ci li nga xamante ni moo di des cadres du parti euh, dans ces rendez yoo xamante ne euh, nii la mel partager l'information ça évite ñu nekk ci li nga xamante ni moo di la fabrique à fake news. Donc, euh, c'est tout à fait normal, hein, cette stratégie de comme mais aussi qui entre dans l'ordre naturel des choses. Parce que euh, dañoo nekk ci jamono yoo xamante ni fabrique à fake news yi bëri nañ macha allah bëri nañ lool lool lool lool mën nañ ne euh, c'est la seule fabrique bi nga xamante ni moom moo ëpp le taux de chômage au Sénégal moo di ñi nga xamante ni seen spécialité mooy def li nga xamante ni moo di fake news ki nga xamante ni moo di euh, Bassirou Diomaye a fait ce travail là et moom itam euh, ak El Malick mais aussi tout le monde parce que gëm ni patriotes yëpp ñi ngi doon liggéey ci li nga xamante ne moo di éclatement wu dëgg bi mais surtout ci moment yu mel nii rendez yu mel nii ñu éviter fake news yi nga xamante ne moom mooy inonder un peu la toile kon pour revenir si les gens qui nga xamante ne ñoo ñuy Euh, seetaan euh, président Ousmane Sonko génn na léegi léegi tribunal bu Dakar ànd ak euh, son convoi ñoo ngi jëm fi nga xamante ni moo di direction cité Kër Góor gi ñoo ngi toll fi nga xamante ni moom moo di corniche bi waaye rythme bi bu yéexee du ci convoi Ousmane Sonko c'est la brigade d'intervention polyvalente ñoom ñoo nekk ci kanam gyrophare yi ngeen di seen donc c'est à eux d'ouvrir la route. ils prennent leur temps donc euh, kon euh, nañu euh, pour képp ku xam rek mu xam ni tolluwuñu ci trouble à l'ordre public ñu itam ci manœuvre pour yéexal le convoi c'est la brigade d'intervention polyvalente de la police nationale ñoom ñooy tijji et voie bi après le convoi suit comme ni ngeen ko gisee ci ginnaaw itam oto yi bëri nañ macha allah comme ni ñu leen ko annoncé woon le dispositif sécuritaire qui accompagne le président Ousmane Sonko bari nañ macha allah et là présentement euh, ñoo ngi avancé euh, mën nañu affaire yi sax dafa taxaw actuellement le convoi est à l'arrêt euh, fi nga xamante ni moo di hauteur u corniche ouest bi on sait pas li xew devant peut-être qu'il waa le convoi est en train de repartir mi ngi demaat ñi ngi ak yéen ci corniche ouest bi ànd ak président Ousmane Sonko mu war a rejoindre këram après cette audition boo xamante ni def nañ ko Euh, tout à l'heure euh, face au doyen des juges. OK, le convoi doit continuer. Le convoi doit continuer. OK, parfaitement. Le convoi continue alors. donc euh, ñoo ngi noonu jëm cité Kër Gorgui pour ñu ñuy seetaan le président Ousmane Sonko a répondu euh, lors de cette deuxième audition deuxième face à face bu mu am ak le doyen des juges Maham Diallo bi ko convoqué woon sauf que euh, bi yoon euh, c'était pas pour l'entendre sur le fond mais c'était euh, pour mu nekk en confrontation avec l'accusatrice Adji Sarr donc ci li ñu jot ci minutes yi ñu jot a for ci li nga xamante ni moom moo di ce face à ça s'est bien déroulé du côté du président Ousmane Sonko qui a fourni de de nouveaux éléments yoo xamante ni dina dinañu permettre ñu gën a euh, taxaw ci yoonu bi nga xamante ni moo di éclatement euh, waaw éclatement wu vérité bi waaw loolu moom euh, daanaka bu doonoon bu doonoon bëccëg mu gën a graaw parce que ah. si vous voyez les images derrière Cheikh mën nga leen may image yi yaa ngi seen gyrophare yi a perte de vue ci ginnaaw aussi moo lay won ni ce dispositif là qui accompagne le président Ousmane Sonko euh, Cheikh wan leen ci ginnaaw euh, boo leen wanee ci ginnaaw yéen a seen gyrophares yi à perte de vue bu weesoo suñu oto bi tout ce que vous voyez derrière c'est des véhicules de la brigade d'intervention euh, polyvalente mais aussi du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale comme comme ni ngeen ko waxee ci commentaire yi président avant l'heure pourquoi pas en tout cas sur le plan sécuritaire on peut dire que Euh, li ko accompagner euh, président bi fi nekk sax bëriwul ñu koy accompagner euh, mu mel nii. li Euh, fekk na soo ko génn euh, ñu ngi nii topp ci convoi bi euh, toolu corniche di dem dañu seetaan bu baax bi nag jàmm ñooy nu daanu Thank you. waaw euh, ñoo ngi fi euh, ci corniche euh, waaj a toll fi nga xamante ni mooy place du souvenir. oui. waaw souvenir ngi dem war a jaaree cité kër góor gi ci kanam tuuti ñaako ne dinañ yegg yéen ñi ñu doog a gis ngeen ne depuis ce matin daanaka 11h passé ba léegi ba 19h ci lay Sonko di doog a génn ci audition bi moo ngi nii di dellu këram ñu ko ciy gunge ànd ceeg ñi nga xamante ni ñooy son protocole ñoo ngi nii di dem. Euh, toll nañ fi nga xamante ni mooy euh, Radisson Blu ah ñu di leen ko fàttali toll aussi fi nga xamante ni yéen a ngi koy fàttaliku fa la Aliou Sall doon waatee ci résidence am ba euh, ñoo ngi dem ànd ak ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko war a yegg xool ba xam ndax am quelques mots ci moom wala ci moom wala ci ki nga xamante ni mooy ses avocats lu ci mën ci am bib jiitu na bi ko xaalal ñoo ngi dem duñ génnee fi nga xam ne mooy école normale dañuy remonter. Euh, ñàkkul ne na dañuy dem ba euh, fi nga xamante ni fa lañ jaaroon mooy Atepa marocain yaa ngi jubilé ñoom nag dañoo qualifié en quart de finale euh, pour un fait historique yooyu noonu journaliste yaa ngi ci topp yaa ngi ci topp ñuy dem xam naa ñaar ko ne bu ñu yeggee dinañ jéem a taaxee dinañ am quelque réaction gars yi on est désolé pour la qualité du son y a le vent y a le vent bu fekkee déggu leen rek bu baax jàpp leen ne c'est le vent Ah, ñoo ngi nii di ah, jël fi nga xamante ni mooy Atépa bi ah, war ko jaaree fii nag ndeysaan dafa am taarix ndax boo leen di fàttaliku mars deux mille vingt et un fii la ñu bloqué woon fii la ñu bloqué woon presse bi ñuy waaj yegg ci rond point bi nga xamante ni yéen ñëpp seetaanoon ne ngeen ko vivroon ngeen ko ça a été des moments intenses mooy la arrestation de Ousmane Sonko ngeen gis ni gendarmerie xool leen ni gendarmerie barricadé saas bi continuer dem ki Kër Macky Sall noonu la ko gendarmerie ba barricadé daanaka fu ñu jaar oto yaa ngay taxaw ñu mel ni président mooy jàll. waaw ah, président ñu mel ni président di jàll la seule différence mooy euh, oto du dem oto du dikk mais fi mu toll nii fuy waaj di jaar euh, dañ koy xàll taxawal oto yi bam jàll ñu doog a romb ñu ngi jub rond point bi rond point bañ jàppoon Sonko ci mars euh, deux mille vingt et Euh, ñoo ngi yegg si foofu et ça fii la préfet waxee woon Casamance la presse fii la préfet préfet mu célèbre ba ngeen ngi gendarmerie ngi noonu arrêté na na ko taxawal nee a taxi taxawal. mi ngi noonu rond point Ousmane Sonko situé dans la commune de Mermoz fii euh, événement wu mars yi mën nañ ne fii joué na ci rôle bu am solo. sur le plan historique c'est important à rappeler ci Estelle Mermoz bi nga xamante ne yenn patriotes yi comme niñ koy woowee le rond-point Ousmane Sonko ici au niveau euh, de de Mermoz euh, donc foofu la ñu toll convoi baa ngi euh, progressé ñoo ngi jëm je le rappelle cité Kër Gorgui après près de six heures de confrontation dans le bureau du juge en face à face le président Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Adji Euh, donc <clears throat> pas Adji Sarr parce que amoon na itam euh, les juges le juge qui était là-bas ak euh, avocat donc pour l'instant comme ni ko Bassirou Diomaye Faye expliqué il y a du lourd qui a été mis sur la table du du juge du doyen des juges Euh, surtout euh, venant euh, du camp du président Ousmane Sonko ñi ngi wax li nga xamante ni moom moo di ay audio mais itam benn rapport boo xamante ni itam dañ ko tegaat ci kaw table bi bi nga xamante ni day étayer la thèse du complot on parle aussi de vidéo yoo xamante ne itam war na disponible mais tout compte fait xam nañ ni incessamment le travail sera fait sur le plan li nga xamante ni moo di information ba ñëpp jot ci Euh, lii nga xamante ne mën nañ ko téye retenir ko tey moo di euh, le président Ousmane Sonko est venu Euh, répondre à l'appel euh, du juge malgré euh, que ñëpp ñi ci gën a bëri boog observateur yu bëri jàpp nañ ne confrontation bi dafa gaaw parce que audition ñi nga xamante ne moo di les témoins yi nga xamante ne la défense ñoom la bëggoon ñu déglu leen jotooguñu leen woon déglu ki ci mel ni maître Sow moo bind li nga xamante ne moo di la plainte de Adji Sarr maître Dior Diagne itam nit ñaa ngi wax gis nit ñaa ngi génn Sonko Sonko bi di jolli et là véritablement c'est les Sénégalais qui sortent euh, ñoom ñooy génn di nuyoo di acclamer ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko euh, pas que ñi nga xamante ni ñi nekk ci kaw tali bi waaye bëri na ñoo xamante ni ñi ngi suivre à travers Bour News à travers Pastef les Patriotes à travers Mafia 4x4 Dakar Actu Sene News vraiment plateforme yëpp di suivre ce qui est en train de se passer en temps réel euh, pour euh, ki nga xamante ni moo di seen cofeel gi ñu am ak euh, président Ousmane Sonko am na ñuy génn ci biti di manifester wu di wane seen mbégte parce que dafa jaar seen koñ mais am na ñeneen ñoo xamante ni sont en train de suivre c'est le moment de les remercier Euh, depuis 11 heures tout le monde est ba li nga xamante ni on est aux alentours de 20 heures 30 déjà euh, président Ousmane Sonko ànd ak son convoi euh, ak un dispositif sécuritaire bu am solo bi nga xamante ni ñoom ñoo koy gunge la ñu ngi ci pratiquement ñoo ngi nii di dugg cité kër góor gi fi nga xamante ni moo di résidence su président Ousmane Sonko dispositif baa ngi noonu yéen koy seen mu di gendarmerie ak police nationale Vraiment, c'est des centaines et des centaines, voire des milliers d'agents qui sont déployés dans Dakar euh, pour les besoins de cette confrontation-là. Euh, président Ousmane Sonko mi ngi dugg si fi nga xamante ni moo di koñam euh, ñoo ngi dugg cité kër góor gi daanaka mbedd bi moom journaliste yi ak patriotes yi miin nañ ko bu baax a baax mbedd bi lay président Ousmane Sonko di génnee dispositif baa ngi noonu yéen a ngi koy seen président Ousmane Sonko mbedd nay lay génnee président Ousmane Sonko mbedd bii lay duggaatee donc képp kuy journaliste képp kuy patriote xam nga mbedd bii bu baax a baax donc soreetuñu Euh, kër gi après euh, près de euh, plus de six heures de de d'horloge dans le bureau du juge Ousmane Sonko mi ngi nii di ñibbi on attend les développements dina ñëw Bassirou Diomaye Faye commencé woon na ko en termes d'information avant que son compte ne soit massivement signalé waaye mi ngi may naan ni récupéré na ko Euh, que information yi dina continuer foofu les minutes bien sûr les minutes euh, de l'audition euh, de Ousmane Sonko et de Adji Sarr incha allah dina disponible ci plateforme yi très bientôt kii di dina def débrief jot na média dina mi ngi préparer débriefam itam Pastef les patriotes plateforme yëpp ñi ngi taxaw taxawaay boo xamante ne eh, ils sont ils vont faire le débrief donc restez scotchés les minutes euh, de cette audience de cette audition vous moto yaa ngi noonu gunge président Ousmane Sonko ba mu àgg këram dispositif sécuritaire baa ngi noonu dispositif sécuritaire baa ngi noonu euh, fees fi daal moto yaa ngi noonu nit ñaa ngi seen kaw immeuble yi di yëkkati loxo di nuyu président Ousmane Sonko xool ci kaw terrasse bi lii moy Sénégal lii mooy cité Keur Gorgui qui est devenu la base le fief euh, du président Ousmane Sonko à Dakar le dispositif sécuritaire est toujours important toujours important fees fi del del del del entre dragoog lépp a ngi fi euh, nit ñaa ngi génn kenn mënu leen téye ñaa ngi génn kenn mënu leen téye on regagne euh, fi nga xamante ni moo di la résidence du président Ousmane Sonko dans moyen de trois minutes incha allah on sera dans sa uh, maison. Uh, uh, publication bi defoon naa ci ay live est-ce que uh-huh. loolu information boo xamante ni avocat yi confirmé noonu nañ bagage waaw effectivement les avocats l'ont l'ont confirmé euh, effectivement euh, parce que ça a même euh, pause de trente minutes pour permettre aux greffiers de le retrouver domicile Euh, lii mooy li nga xamante ni moom moo am euh, tey euh, fii nii concernant l'audition du président Ousmane Sonko mu nga dugg nañ ki nga xamante ni moom moo di la ruelle qui mène chez le président Ousmane Sonko donc mën nañ ne Oscar Sierra est en est en sécurité chez lui donc Oscar Sierra est bien revenu chez lui ah ni koy boy di waxee donc le président Euh, et euh, chez lui donc xel yi mën na dal euh, dellu si nañ tranquillement fii nii ci kanamu kër président Ousmane Sonko oto baa ngi noonu ah Cheikh on va essayer de la voir très rapidement en réaction on va essayer de la voir en réaction un peu waaw mi noonu euh, président Ousmane Sonko Waly Diouf Bodian le protocole du président Ousmane Sonko maître Clédor est là maître Clédor est là donc euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk habituellement le staff du président Ousmane Sonko Fadilou Keita seen nañ ko euh, ñëpp a fi Ousseynou

naka mi ngi noonu mi ngi noonu ah, président Ousmane Sonko ngi noonu génn na mi ngi nuyante ak di saafante ñi nga xamante ne dañoo ñëw ba foofu ah, taxaw ñi nga xamante ne dañoo ñëw ah, ba ci buntu kër gi ah. mi ngi noonu président Sonko mi ngi noonu président Ousmane Sonko mi ngi noonu ñibbisi na këram dara mi ngi président Ousmane Sonko bien arrivé chez lui donc on va euh, couper li nga xamante ni moom moo di euh, live bi ah donc euh, on revient tout à l'heure euh, ci euh, incha allah on va essayer de couper le live parce qu'on est dans dans dans chez lui.